هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون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 ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تحيير حرف أو تقديم أو تخير أو زيادة أو نقصان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 أو مد أو تسديد أو همزة أو جسم أو إعراب بغير مكان فاكتبوه منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواغسنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبئنا قبل المنايا عن نوم عن نوم غفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعط رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك بسر به في سر وإعلان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 وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وعافنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وعافنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق, بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدقلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا صل الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حسب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء البركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالغاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكا وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سنا وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهرة وبالله غفر وبالعين علما وبالغ... وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالخاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو غزلة وبالهاء هداية وبلام ألف لقاء وبياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين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 اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خسل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتدى ووليك مجتبى وأمينك على وحي السماء وأحينا على سنته وأمتنا على ملته وجعلنا من أهل شفاعته واعصرنا في زمرته وأسقنا من حوده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب قراءتنا هذه لمن جعلتنا سببا لاجتماعنا هذا وآته بالقرآن في قبره سعته في قبره السعة الواسعة والحجة البالغة والقول الثابته والنور المستبين في اللهد المظلم وجاف الأرض أرض عن جنبيه وارحمه واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آته بالقرآن أمن يوم الفسع الأكبر والرقاء عند الشدة وتثقيل الميزان عند عند الغفة وتيسير الحساب عند العسرة والورود إلى رحمتك والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من حسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فتجاوز عنها بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك ما محمد فامتجب باي عبد صلى جوب باي عبد جوب باي ياي سخنا فاتو سانغ فاتم جوب baabu soxna Jóob maam ndonga baasin wa jamiu usrati maama maam ba maam ba baakar Jóob wa jamiu usrati maam baate maam baate wa jamiu usrati maam jibel lobe jama wa jamiu usrati مام سكور صو وجميع أسرتي مام مود بامبا سال وجميع أسرتي مام الحاج محمد سين أبو جو وجميع أسرتي مام الحاج أحمد دام تامبد وجميع أسرتي مام الحاج علي فات فاتو سيسي وجميع أسرتي اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك ما محمد فمت جوب باي عبد صلى جوب ياي باي عبد جوب ياي سخنا فاتو سنغ فاتم جوب baabu sohna diob mam ndonga basin wa jami usrati mam abdou haram ramata wa jami usrati mam bakar diob wa jami usrati mam pate batour wa jami usrati mam jibel lobe jama wa jami usrati mam sakour sow wa jami usrati mam moudou bamba sall wa jami usrati مام الحاج محمد زينب جو وجميع أسرتي مام الحاج أحمد دام تامر وجميع أسرتي مام الحاج علي فاتسيس وجميع أسرتي اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واسلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك مام محمد فامتجب جب baay abdu salla Diop baay abdu Diop yaayu soxna faatu sàng fatim Diop baabu soxna Diop maam ndongo baasin wa jami usrati maam abdu haram ramata wa jami usrati maam bakar Diop wa jami usrati maam paata batuur wa jami usrati maam jibel lobe jama wa jami usrati maam sang sokoru sow wa jami usrati maam Moodu Bamba Sall wa jamii usrati maam alxaaji Mouhamad Seynab Diaw wa jamii usrati maam alxaaji Ahmad Daam Tambir wa jamii usrati maam alxaaji Aliyun Faatu Siise wa jamii usrati allahuma awsil sawaaba dalika ilayhi wa jacalhu nuuran yascaa bayna yadayhi allahuma akrim bihi maqaamahu ويسر به حسابه وضاعف به ثوابه واجعل ثوابه اللهم أنس وحدته وارحم قربته وتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين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 بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد فلا حمد إلا أن تمن بنعمة تعاليت لا يقوى على حمدك العبد والصلاة والسلام على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa radiyallahu an cheikhina tijani wa an jamihi xulafaihi wa ahli tariqati mbokk yi ginnaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñu teew ci jotaay bi yépp ci néew bi gën a sell te ëmb lépp te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw loolu sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu bu baax jotaay bi teewaay bi at ñi nga xam ne ñoo teewee kaamil bi nga xam ne fu nekk rek nit jóge na fa ñëw teewee ci kaamil bi kon nag yàlla na yàlla nangu kaamil boobu waaye sax bis bi biñ ko jàppee ba léegi ñoo ngi wàcc ay kaamil wàcce nañ ay kaamil yu takkoo takkoo takko xam naa daal buñ koy xayma sax ëpp na téeméeri kaamil yoo xam ne wàcce nañ ko ngir bis bi yal na yàlla nangu lépp def nañ ci ay dog yu limoo limoo limu yu takku def nañ ci ay bismillahi rahmaani ay basmala def nañ ci xasbunallahu wa ni'mal wakil def nañ ci ay lim yu bare bare bari waaye it def nañ ci ay salaatul fatihi yu bare bare bare bari yal yàlla nangu lépp bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ginnaaw loolu nag sëriñ bi nee na mi ngi sant ñi nga xam ne ñoo teewe jotaay bi yépp jëmbal ko ki nga xamante ni bi moo ci jiitu di imaam Babacar Diop ñu gën koo miin ci imaam Babu Ndar teewee na jotaay bi nekk imaamu dëkk bi sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ak ku ci mel ni Serigne Babou Sanga fële ca Daarul Bayda moom itam teewe na jotaay bi ak ko ci mel ni Serigne kër Gueye bu Piram xam naa bu ñu limee ñooñu rek mu yóbbaale ñi ci des ñépp incha allah xam naa sax ñoom ci kanam dinañ leen jox kaddu muy imam Babacar Diop ak Serigne Babou sànga ak ki nga xam ne mooy Serigne Babacar Gueye bu Piram waaye ginnaaw loolu sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax a baax a baax ki nga xam ne mooy sëriñ Daara Ibrahima Dieng sëriñ bi nee mi ngi lay sant xat xatma bi leer na tabaarakallaahu waaye it neex na yal na yàlla nangu lépp sëriñ Ibrahima Dieng nag nekk sëñ Daara ku xamut moom moo jiitee sëriñ Daara yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Jurbel nekk sëriñ daara bu mag yor fa daara ju mag kon sëriñ bi nee mi ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax a baax waaye di gërëm ñi teewee jotaay bi yépp xam naa jotaay bi mu ngi bëgg a yàgg kon de su ko defee dañuy jéem a dugg rekk ci ñi nga xam ne ñoom lañ war a jox kàddu ki ci njëkk muy suñu maam di imaam Babacar Diop. xam naa dañ koy jébbal micro bi rek bu ko defee mu sànni ci ay kàddu insha allahu taala salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ñoo ngi bokk yépp di leen siyaare di leen ndokkal ci bis bi di am lool ci jitaay bi nga xam ne fa tabaarakallaahu asnul xaaliqin jataayu quraan la jataayu diina la jataayu lislaam la ay kalifa yu bari teew fi ndax jëmmal bis bi bàyyi xel tàmbali liggéeyu bis bi incha allah ñaan yàlla ci kàttanam niñ ko tàmbalee ci bismillah mu àgg ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal ñu ngi siyaar ñëpp nuyu ñëpp foo gan bàyyee ko ak dëkk yëpp leen di ziar di leen nayu fa tabarakalaaw jàng nañ benn kaamil xéeni ci jaamu yàlla xéeni ci mboolem woy dawli yi xéeni ci mboolem soxlaay doomu aadama yi ci bés bi yàlla àggal ci jàmm ak salaam ñaan it ku fi dikkee soxla yàlla fajal la ko ku dikkee jàngoro yàlla saafaral la ko aajo boo mën a ñëwee yàlla boole ko kaamil boobu dal li koy yéwénal sa lépp daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan lool ah fa tabarakallahu asrul xaaliqin quran moom lu mu jiitu rek lool pare na eh, am na palam yi dina am mucc insha allahu sabirun ndax mooy moo jàkk moo jiitu moo mujj incha allah kontaan lool léegi alaaji madina ne ngi sant ñëpp ngi gërëm ñëpp kontaan ci jitaay bi gan ñi fi tew ñep ngeen di wax ji jërë ngeen jëf di jang camp bi mu ne jërë ngeen jëf kontaan na lool te li moy moy li war rek doomu julit waaw doomu julit taw lo xamne diina tax mu jog l'islam tax mu jog boole bokkee tax mu jog def jam wax jàmm yi ni jàmm tax mu jog loolu ko ci woo ay doomu adama fa tabarakallah wàcc nga waye dimbali nga doom adam yi na wax deug yalla da fekkoon tey ne mo ci jitaay bi ñing won ci leneen lo xam man na jur bakkaar waye alhamdullilah nga teunk ñu dal yi ne place ben place bo xam jaamu yalla lañ fi nekké ba fañ fi bàyyi ko alhamdullilah rabbil alamin ñu ci sant jël li gërëm bu baaxa baaxa baax baax a baax léegi nag ah góorgóorlu gor góorgóorlu rek ndax quran ji ñu jang quran ji ñu jang ñu ngi koy gërëmee suñu baay yi ak suñu maam yi ndax kat su fekkoon ne ba ñu nekkee tout tànk suñu bàyyi dañuy bàyyi woon jàngal woon ñu alquran yóbbu ñu ca daara ya kon tey kaamil bi ah waxuma dana dana yegg waaye dana yéex wala bu yeggee dana lëj waaye alhamdulilah ñu fi daje yëpp ay doomi soxna yoo xam ne seen baay yi fàttewuñu leen woon yóbbu leen ci daara yi ñoo taxawal kaamil bi mu jàng mu rafet ñu teg ci fiddaaw boo xam ne alhamdulilah doy na xënn si yëpp doy na monde bi yëpp ndax jàng nañ fi juróom-ñaar fukki junne ak bas ah, ah, laa ilaha illallah jàng fi ah, douze mille yoo xam ne basmala la loolu yëpp bis bee tax ak bokk jëli di ak jaamu yàlla yi ñu ngi ñaan yàlla nangu ko ko defee ñun ñi xam ne ñoo des nag léegi xamee njaboot ama ay tout tànk ñu fexe ba def ni suñ yi defoon ak suñ maam yi defoon mooy tuut tànk yi ñu dugal leen ci daara yi ñu jàngal xuraan ndax boo liggéey ñu man nee taxawee ñu taxawee ñun suñu baay yi su fekkee defuñu ko nag woor nañu ndax suñ yi de ah wax dëgg yàlla wooruñ ñu teg nañu ci siraatal mustaqim ba tey ñu mën a taxawee lii kon ñun itam am ne aw sos woo xam ne njaboot gi ñu xam ne yàlla dénk nañu ko ni góor góorlu teg leen ci saraatal mustaqim jàngal leen alquran jàngal leen diina jàngal leen sariya yer leen teg leen ci saraatal mustaqim te dimbale leen ci baax nag loo am na ko jaral loo man na la ko jaral ndax jàngu léegi fa tabarakallah dafa ànd ak dimbale kii jàng da koy dimbale ci yére yum sol da koy dimbale ci téere yi mooy jànge da koy dimbale ci li mooy dundee da nga koy dimbale ci li mooy fajoo da nga koy dimbale teete ko bam ñeme li nga ko jox boo liggéey mu jox la résultat yoo xam ne incha allah sax xol dana sedd waaye kenn du joxe daara ci doom aadama ci daara ay xati xat mosoo xam suñ daara bi ci li mooy dund mosoo xam suñ daara bi ci lan la nekk mosoo xam suñ daara bi lu dundee xale bi coono bi mu jànkuwante moom su fa feebaree mu yóbbu dispensaire su feebaree mu faj boo xiifee mu jox ko bu maree mu jox ko su bëgg war du mu jox ko ak dëkkuwaay yëpp yow bàyyi ji nag alhamdulilah xamal xele bi lu mu nekkee loolu waxuñu loolu da nga koy joxe ci lépp lu am mu jaral la ko waaw mu jaral la ko waaw di koy dimbali bu baax ndax boo léegi xel xele bi ci boppam day xam ne bàyyam lim ko jox. fonk na ko itteel na ko kon ñu góorgóorlu yéen wañ jure yéen a moom loolu le suñ daara yi itam ñu la joxee doomu aadama liñ bëgg ci moom mooy fexe nga yar ko mooy jiitu nay yaru mooy jiitu na yaru alxelmu bila adab mun a amul benn njëriñ xam-xam boo xam ne àndul ak yaru alxuraan bi àndul ak yaru daanaka rek dafay nekk neen day nekk xëdër kon na jiital yar bi xam xam moo xam ay mag am ay moromam moromi baayam moromi yaayam yëpp mu jox na respecte boo xam ne boo liggéey day xam ne kii jaar na ci daara na yaru bu baax na yaru bu baax soog a andi nag Qur'an ci dënn bi mu fees dell lépp li mu jàng mu mokkal ko su ko mën a mokkal mu xànk bu baax a baax a baax a baax waaw su ko defee nag su boobaa rek liñ ko sol incha allah ëllëg bu résultat génnee doo rus waaw doo rus woy juróom dana kontaan kon wax ji du bari ndax jotaay bi yàgg na te. Ah, am luy taajee ndayan ndayan njàng fi muy ndek yi taajee kon dal fa tabarakalaaw alaaji ma di nee ne kontaan na lol ndax gis na bokki yépp wa dëkk bi yépp sidau. nañ jang nañ kaamil bi def nañ fi daw alhamdullilah rabbil alamin mi mi ngi sant di gërëm alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñaan yépp yalla na yalla yagal la fi lol lol lol lol serigne bi yalla na nga dundu at yu tàmbali ren té mu and ak wër bu mat sëkk nee na mi sant bu baax a baax a baax kenn mënula fay nee na mi ngi lay sant bu baax a baax a baax nee na ku baax nga ku woyof nga ku laabiir nga macha allah nee ku ñàkk kiñaan nga tamit waaw nee biñ jàppee bis bu ba léegi daal bis bu nekk yaa ngi ci ñaan. waaw nah, nee mi ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm nee yow royukaayam nga waaye it suñu tiitar nga nee na même Ndiobène daf lay tiitaroo di la sagoo nee ndax dundal nga xam-xam dundal nga mbaax dundal nga diine ji nee na yàlla na yàlla fayal ñu la yàlla na yàlla na nga delluwaat màkk yàlla na nga dem phase ak feneen ak feneen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee rek xam naa ni ginnaaw bu ñu jógee ci al alxaaji alhaaji kër jóg dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Serigne babu Sanga kaatu nee na ñu ngi nuyu ñi fi daje ñépp nee na ñu ngi sant yàlla. di julli ci yonent bi. di ñaan yàlla. kaamit bi yàlla na ko yàlla nangu. nee na di ñaan yàlla yal na yàlla àggali liggéey bi. di ñaan yàlla yal na yàlla àggali gàmmu gi. waaye it di ñaan yàlla ñu def ko ay at yu bare bare bari. nee na lim ciy wax. Nena porte parole keur gi mi ngi fi nena nak mom nena du maye ba pare di nangu mu ni bu amé liñ ciy sanni serigne ibrahima lay doon kon dañ koy jox micro bi nena mom da doon ñaan rek waye wax ji serigne Ibu moko yoré nena ñi ngi sante serigne Madi cant goo xam ne am na tàmbali waaye dëgg-dëgg amul yemukaay. nee neena serigne Madi daf ko bëgg lool. waye yéenam dafa rëy ci kër gi lool. neena serigne sëriñ dal daal. gudd fan rek lañ koy ñaanal. serigne bi neena na wasalaam lii la amon lu muy sann ci ay kaddu ñu jox Cheikh Ibrahim Gatou. ñu ngi nuyu ñëpp di xare ñëpp. di dalal ñëpp di wax ne ci kàddu sëriñ bi lañuy waxee yàlla yàlla nangu kaamil bi yàlla bu mu di suñ mujj kaamil yàlla nañ ko fi jàng téeméeri at ñu tàmbali tey sëriñ Madi mooy sunu sëriñ Madi lépp lu muy def ñun la koy defal ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ñun moom la ñuy sant di ko ñaanal ndax mooy sunu sag ni mu waxee oustaz imam Babacar mi nga xam ne ñun moo ñuy jàngal ci lañ koy santé mom itam diko gëreum di wax né mom mom bo xamewul bopam ak nit ñi dafa jël jël bopam jox ko ñepp ba jéxal tak mom ci bopam yalla la fi yalla yagal yagal fi sax njabot ak képp ku la sopp képp ku la yéne bis bi yalla ko yalla may mbax barké sina mohammed li ci bëgg ya ko xam yalla ci yalla jox ko sa njort képp ku fi téw ñun nga téwal ñu lay sant di la gërëm di wax ne lii boo gisee nit ñi xëre nii ci lii nit ñi dañoo bëgg mbaax di wër ku baax te buñ gisee ku baax nag duñ am seen sago kon yàlla yàlla nangul ñu seen seen ak mbaax gox bi yàlla fi yàlla saxal jàmm def fi naataange yàlla yàlla boole xol yi ci kàddu sëriñ bi lay waxee ne nañ seetatal mbokk gi bu baax a baax nañ gën a bëggante gën a yërëmante di gis ne suñ borom bi tabaraka wa taala dafa bëgg lu baax bëgg lu rafet nañ di waxante lu rafet di jëflante lu rafet te jéem a ragal sunu borom jublu ci moom ndax jamono bi dafa jeex tàkk ba pare léegi ñu ngi jublu ay coo yoo xam ne jullit bu ne war nay xam boppam ne moom jullit la canam cay duggee ndax alaxdar yi day wax ne du dagan ci jullit bi muy jëf benn jëf te xamul lu ci yàlla àtte mbir moomu nag ci la xamee ne kon ñun yàlla dañoo tënk ci diine ñun ñi nga xam ne nangu nañ suñ diggante dañ ko war a sàmm ci wax yu rafet ak jëflante bu rafet gan nga jóge ci àll ba ñëw ak diine na fi fekk diine gan nga jóge ci àll bi ñëw ak politique na fi fekk jàmm jàmm ji mooy ku ñëw nañ la xam ne gan la dalal ko lam bëgg ñu waxtaan caag moom ña a ànd ak moom ñu bàyyi leen ñu ànd caag moom te ñun ñi nga xam ne ànd nañ feneen ñu xam ne suñuy bokk lañu am. amuñu benn politicien suñu bokk lañ am amuñu lu mooy diine ak suñuy bokk bu ñu kenn jaral ñuy dëdd suñu mbokk bu ñu kenn jaral ñuy bañ suñu mbokk ndax ku fi faru juróomi at nga dem keneen ñëwaat bu la yàqalee sa mbokk da ngay wëlbati raf rafle mbokk moom mu dem ci ay bokkam. te ku fi yëg ku ne balaa mooy xentu kenn day xentu ay mbokkam kon ñun nañ bokk suñu bokk gi. ragal sunu borom and ci politique bi ci diina ak mbokk tariqa yi bu ñu xajalé bu ñu parti politique yi xajalé ndax yalla mo ñu sant waxtasimu bi billahi jami'an wala tafaraqu nañ bokk jaamu sunu borom te ragal ko te xamne adina bi ñu ngank jarul dara dal dara yàlla lu la xañ ci adina bu ëllëgee dang ko dang ko réccu dotu ko won bëgg am sax yàlla mooy lépp yàlla lu ñuy am nañ am yàlla lu ñuy ñàkk nañ nañ am yàlla barke si naam alayhi salaatu salaam lii nag yàlla na fi yàgg ta sax fi maa ngi jégalu ñëpp nag waxee ma xam-xam dama bëgg rek ñu bokk bennoo te xam ne bennoo mooy doole bu ñu xaajaloo dañ néew doole te bu baax yàqkati diine yi daañu gën a yàq te ñun amuñ lu mooy diine sëñ Ibrahima Dieng kontaan nañ bu baax yàlla yàlla baaxal la gën laa baaxal yàlla nangul la sam baax ndax wax dëgg yàlla ku baax nga mu nga dégg bi xàmmee ba léegi ci mbaax nga sax ku la xam ci mbaax la lay xam yàlla bu la cat jiitu yaag sëñ ma di yàlla na gën a yàgg yàlla gën a boole seen diggante dafi tawfeex ñu ngay gërëm ñëpp di jégalu ñëpp sëñ baaw maa ngi jégalu baax na ci lim ci dugal ndax xam naa ne maa ngi jégalu baax baax asalaamaaleykum rahmatulah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ki si nekk sa tur ak sa jëmmu eh, di leen wàcce kenn ku nekk waayam di leen sant di leen ñaanal te di ko sàkk si yéen di rafetlu jataay bi di wax ne dog yi ñaan yiñ fi jàng yëpp yal na ko yàlla nangu kaamil yëpp yal na ko yàlla nangu mu mel ni ay mbokk ñoo daje ci barab di ñaanal ñu fi jóge mu nekk bis boo xam ne it dañ cee xaasalaale yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu yeggee ca guddi ga kon dafa melni ni guddi bis bi limu lambo tay bari na lol ki wax ak yeen di Mustafa gay di dom ci Alhaji Musa nga xamne yag na ñew fi man nañu wax ne ki wax si kër gi la dekk ndax jarbaat la ci kër gi ndax euh, niya madimi sama nijaay la sama yaay mu ngi dekk kër Hamad Xasi gi sama mbokk yi bari nañ ci bis bi lol kon mu ngi mel kon sama kër la nek fi lay waxe mu mel ni dafa am ay alaaqa yoo xam ne ñoo aju ci diggante kili kilifa yi rawatina nag Madi mi nga xam ne moom soppe si ci woy jur lool mu yebal ñi fi nag ne nañ ko fi teewal ndax ku nekk ne xam na ne mag benn wér gi du demee noonu wala jot gi du ko ko may ñu ànd ak nag ki nga xam ne mooy Serigne Babacar Diaw Guèye nga xam ne mooy suñu porte-parole mën nañu wax ne mooy suñu tànki suñu wayjur mooy loxoom mooy kanamam mooy gannaawam. biñ jàngee moom lañ bàyyi woon ca kër ga moo ko daan doxal ay soxla bi ñu ñibsee itam kilifa gi na ko ah man nag damay noppalu léegi fu ma daan dem xam nga ko yow ak njaboot gi la fay yebal nga xamal leen barab yi nga xam ne daan naa fa dem moo waral ñi ànd ak moom ñëw teew fii. mu mel ni itam ki nga xam ne moo gën a rataxal diggante bi mooy Baye Ilimaan ah yal na yàlla wéral cër yi yàlla dëgëral ko dooleel ko mu nekk koo xam ne yéene bu mu am ci mbokk yi kenn xamul nu mu toll. Baye Ilimaan na yàlla guddal sa fan yàlla may la wér ñi ngi ànd ak suñu sëfoor muy Mor Gueye ànd ak it suñu baay Malick Gueye ànd ak itam ah, Isaaxa Diop. dégg nga ñun ñoo ànd ci oto bi ñëw teewli teewli Mady Diop ci bisam bu rëy bii mu mel ni comme niñ ko waxee rek wóllëre yu yàgg ak yéene wante jàmm ak mbokk dajale ci bis bii te ku nekk liñ ci jiital mooy kaamilu alquran ñaanal te ñaanal ku fi jógee yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay qualité yu bare bëri yonent bi dafa wax saxaaba yi ne leen xol dafay wow dafay xoomaat comme ni weñ di xoomaatee ñu ne ko yaa rasulullahi xol boobu moom bu xoomaatee lan moo koy fomp dafa ne innal quluba tasda'u kama tasda'u alhadid qila ya rasulullahi wa ma jila'uha mu ni siyaratul qubur wa tilawatul quran mu mel ni alquran lañ jiital fii kon mën nañoo wax ne képp koo xam ne sa xol lëndëmoon na tilamoon na mën nañoo wax ne fomp na tey képp koo xam ne sa xol no wowoon na fàtte woon nga ña faatu woon tey fàttaleel nañ la ko ndax tuddal nañ la fi ay ñoo xam ne génn nañ aduna kaamil bi ñoom lañ ko jagleel ak yeneen kaamil yoo xam ne jàng nañ ko si yeneen i barab mu mel ni ñaanal ku fi jege nekk na lu am solo ah, dafa am benn aalim bu ñuy wax. Ah, imaamu Suyuti ku nekk xam na ko ci mën a taalif ak euh, maanaam yàlla may gim ko mayoon dafa jege dëkk jëm dëkk am soxla bu mu fay doxee ne nañ mu mel ni ku jaar meew njóobeen tey si misaal romb xabru ya bi mu ci xabru yi mu toog jàng fukki xulwa ak benn ne sarax naa ko ñi fi tëdd yàlla may ko ma ku yàlla mayoon kas kasfu la wuññil ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir bàmmeel yi mu gis ne xuluwa yim leen sànni ñi ngi ñi ngi koy njakkalante ñoom ñi ci biir bàmmeel yi ku nekk naan ku nekk bëgg cee am ci xuluwa yi leen imaamu Suyuti jox am kenn koo xam ne moom mu nga beru na ne lijjantiwut gaa yi nga xam ne ñooy soddee xuluwa yi leen imaamu Suyuti jox moom ndaw si imaamu Suyuti yàlla may na ko mu mën a wax ak moom mu ne ko waaye lu tax ma sànni leen ay xuluwa ñee di ko séddoo yow nga toog fi nga toog mu ne ko man soxla soxlahuma ñee lañ la nga xam ne ñoom nga leen jox ndax man dama am doom ji ma bàyyi àdduna doom ju baax moom may ñaanal bët bu set dina ma yónnee fukki xulwa ak benn moo tax ma doyloo li ma xam ba tax soxlaalu ma ñee loolu suñ la ko doon misaal si jamono dañ laa wax ne comme ku nekk ku doom bu nekk bitim réew chaque fin de mois mu envoyé la un million wala deux millions wala cinq millions est que kooku yow ki nga xam ne moom toolab gerteem juróomi mbaam la xam danga ko soxlaal doo ko soxlaal mu ne ko man dama am doom ju baax ju nekk adduna moo may ñaanal moo tax li nga xulwa yi nga sarxañee man ma baxee leen ko am beneen waaye bu ne ko imaamu Suyuti mu ne ko labayka mu ne ko xaaral ma yóbbante la mu ne ko soo demee dëkk sàngam mu ne ko waaw mu ne nga laajte kër diw sàngam mu ne ko waaw mu ne nga laajte diw sàngam mu ne ko waaw mu ni boo xeggee nga ne ko sa baay nee na yaa bon bi nga ko suulee ba tey ëpp na fukki at mosoo ko yónni benn xulwa imaamu Suyuti continué yoonam dem laajte dëkk ba ñu wan ko ko mu laajte kër ga ñu wan ko ko ñu laajte diw ñi wan ko ko mu ne ko sa bàyyi ne na yaa bon ba nga suulee ba niki tey ëpp na fukki at benn xulwa mosoo ko yónni waaja dafa jooyee jooy ba yiri yim soloon sax wax nañ ne muus mi woon ci néegam sax dafa doon jooyaale ngir jooyu métti keroog waaja la commencé ñaanal baayam imam Suyuti dem ci tukkim ba depp ñew ci xabru yi jangat xol xulwa ñaanal gaay ki nga xamne moko yobante won nako so wax sama dom nako ya bon bim sané xol xulwa yi gis na ne mom ñëwut ci séddoo bim sané gaay mu ne ko wa yow lutax ma bima depp bima fi di dem ma sané ay xulwa nga bok ci ñi séddoo ma dëppaat jang ay xulwa ma gis la nga beru bok ci ñi séddoo mu ne ko lama la yobante hon de leer na ma ne jotale nga ko ndax kerek bi nga demee yég mu wax ko sax ne ko yaakaar naa ne kerek altine si heure sàngam nga yegg kerek heure boobu laa commencé jot al xuluwa ba niki tey moo tax bi nga dëppee xuluwa yi ngi sànni gaa yi nii soxlaalu ko moo tax kon ku fi jógee ñi di ko ñaanal ndonte la da nga dégg ay ñoo xam ne dangay xooyee seen bopp ay jullit te wax ne ñoom ñeneen lañ di ko sikkal lañuy def lañ xamut ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ne jàngal euh, maanaam siyaara bàmmeel day day day fomp xol bu xomaat lim lay jàngal mooy yow so loo wow wow xol soo demee si bàmmeel xam ne fii ñu ma ëpp alal ñi fi ñu ngi leen fi suul ñu ma gënoon a wér ñi fi ñu ma gënoon a nekk xale ñi fi ñu ma mag ñi ngi fi nga xam ne yow mi fii nga jëm loo bonoon bon sa war naa dellu si yàlla nga xam ne yow mii kon fii nga jëm si kon bu nit jógee ne day sikkal jàngal nit a kaamil ku faatu kooku moo xamul li muy wax waaye ñit ñi koy def xam nañ ko yal na yàlla saxal ñu si ñi ñuy ñaanal yal na yàlla jotali leen yoon bi ñi koy ñaan ñëpp yal na yàlla gën leen fa yàggal may leen weer yoo ko xéwaleeg tiraanga yi dama fee gis sama benn mbokku taalibe bu jógee ci pay bu tedd ba Kaarang ñoo fa bokk nekk mooy Babacar ñi ko ñaari Babacar ñoo nekkoon daara ja ñu koy wax Babacar Sarian moom lañ koy dàkkantalee turu sell la la nag Babacar Diop la waaye ñaari Babacar fa nekkoon moom moo daan jiite jàkka ja gars yi di ko xooyee Babacar Sarian seen naa ko fi léegi mu ngi ci togg togg yi maa ngi lay nuyu bu baax di la wax ne boo xeggee nga jotalal ñu sëriñ ba ak mbokki taalibe yi ne leen maa ngi leen di nuyu di wax ne sëñ Madi ñu ngi lay jaajëfal bu baax di wax ne suñu nijaay nga mu mel ni sa kër gi ñu ngi fi door a dugg tey waaye nag yàlla na doon kubbeekaay bañ a doon tëjukaay képp koo xam ne yaa ngi mbaar mii wala ngay dégg kàddu gi ak foo man a ne yàlla na yàlla defal la jàmm defal la xéwal di wax ne Serigne kar mii ñi àndat ku mot a ñaanal la ku ñàkk kañaan la ndax moo newoon suñ kër bépp programme boo xam ne am na moo sëñ bi ñoo fa daan ànd su yeggee sëñ bi moom dafa koy ubbi rek jox ko kàddu mu wax léegi nag mën nañoo wax ne yaatu xolom ak yaatu dënnam tax na bépp programme bu mu daan def moo xam conférence la wala gàmmu la ñun ñaar ña nekk si kër ga nga xam ne ay mag ak rakk muy Cheikh Tidiane ya moom dafa def dafa nekk si liggéey moo tax man tuñ gàmm guñ fay def ci tund woowu moom moo koy taxawee tam moom mii moo ko daan taxawee léegi jël na ko jébbal ko ko li ñuy wax conférence bu fa amoon mu da ko daan taxawee jël na ko teg ko si suñ loxo loolu mbaax weesuwut ko dañu yenente bi dafa ne boroom xam-xam lenn rek a koy dugal safara mooy xañaan da ngay gis koo xam ne day xam lu ne nga dégg bu bu nit toogee di ko tagg sax nga naan ah ko kay kañ la fi juddu xeewu na rek ngay dégg muy wax na suñ ne dit borom xam-xam la nga ne xeewu na nee nañ borom xam-xam lenn rek koy dugal safara mooy xañaan ak ñàkk jëfe xam-xam yàlla nañu si yàlla musal ñu ngi jaajëfal ñëpp di siyaare ñëpp di jéggalu temps bi moo xat kàddu gi lu si jub ci yàlla la lu ci dëng nag suñu gàtt xam-xam la ak suñu ndofe wa axiru kalaamina alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bala xaq waaye di leen baalit tabaarakallaahu di ñaan liggéey bi yàlla na ko yàlla gërëm ci baaxu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne alhaji mari tabaarakallaahu yàgg say bokk ak say wëllëre ñoo ngi leen di ndokkili ci liggéey bi ji ñaan liggéey yi yàllay gërëm yàlla yàlla boole ko ci tabaarakallaahu kem ni ko Moustapha waxee loolu rek mooy li fi nekk bàyyam moo fi daan dikk jamono di dox ba yag ma fi ak mom jamono di dox ba yag ma fi ak alaji mustafa waye jamono di dox ba yag ñoom ñaar ñepp ñi am ngant waaye ñu ko tuddee sax ngant waye bo amé la demal war nga mëna noppalu loli mo sabab ba fi ñu toll nii daanaka fu ngeen leen dan gis ñin ngeen fay gis donte la nga xamne doy ñu ci yónnente bu hit tabarakallah loolu moy li yalla dogal kon alhamdulilah ni ko Moustapha waxee loolu rek mooy li fi nekk kenn ku ci nekk doom ju mel nii moom ngay sago alaji madi ñi ngi lay wax ne famille bi nga bokk ñi ngi lay sagoo tabaarakallahu dëkk bi nga dëkk ñu ngi lay sago waaye gox bi nga dëkk it ngi lay sagoo tabaarakallahu réew mi nga dëkk ñi ngi lay sagoo arab dafay wax ne alxurbu hijab nit lépp lu ko jege du ko gis waaye yow mi sori tabaarakallahu tey dégg li ngay dégg alhamdulilahi lañ cay teg rek moo yàlla nañ ko moorloo alaaji di yàlla na yàlla bëril sa kem ci gox bii waaye yàlla na yàlla bëril sa kem ci réew mii képp koo xam ne fexe nga ba defar sa jikko ba nit jëflanteeg yow sababu jëflante ba jaaree ci lislaamam yokk tabaarakallahu loolu moom la lislaam di sago di ko wéttali ko damay faral di wax ne nga jëflanteeg doomu aadama mu jaaree ci seexlu lislaam ngir seen jëflante yàlla nañ ci yàlla musal waaye nga jëflanteeg doomu aadama mu jaaree ci ëmbal cofeel lislaam ngir seen jëflante rafet gu gum rafet tabarakallahu loolu lislaam bëgg na ko lool sëriñ ma di ñu ngi lay seedeel na kenn nga ca ñooña kon yal na yàlla bëril sa kem waaye yal na yàlla dëgëral sa ndëggu ci baaxu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko Moustapha waxee rek moo fi nekk kenn ku ci nekk bëgg na doom joo xam ne saa boo fi joxee ginnaaw mu taxaw ci sa gannaaw lépp loo xamante ne nii nan loo daan taxawee la mu mën ko rafetal téere yaa ngi wax ne wa arqabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya mahal hayaati walaw suwayhatan li yaxmaloo saalihatan tanfahahum in xafaloo mboolem ku ñu rob ci bàmmel ba du wëññeeku jëm kër ga boo wëññee ko woon fekk ko fa mu tëdd nga fëgg ko laaj ko lan mooy sa bëgg-bëgg mooy dellusiwaat ci àddina mooy doon bëgga bëggam ngir lan tiyaabo jum fa gis bëgg na am wëññeeku waat dellusiwaat ci àddina ngir fàggute fàggu loo xam ne bu demee dana ko mën a jëriñoo ñu ni kon loola mënatut nekk kon fan la koy jëlee ñi ni ci doom jum yi gannaaw rek la ko mën a jëlee kon képp koo xam ne doom nga nga mën a dajale nit ñi ak nga ñàkka mën a dajale nit ñi rikk waay na nga sagal sa jur fexe di ko yónni dara wayjur yi tëdd bar sax yal na yàlla jéggal leen te kat képp ku koy def def ko te yàlla rek tax tabaarakallahu da nga yëg ci àddina yokkute goo xam ne wóor na la ne ki ci nekkul amut ko wóor na la ne ci nekkul amul ko kon am na loo xam ne day del saat ci yow nit nag lépp luy del saat ci moom tabaarakallaahu war na caa def yitt lépp luy soññ yitteem jëm ci rafetal ak bokk taaral lislaam tabaarakallaahu kenn ku ci nekk lislaam loolu lay xaar ci yow waaye koo jëflanteet mu jaaree ca ragal lislaam ngir sa jikko yal nañ ci yàlla musal bokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jéggalu bu baax a baax ni ko Moustapha waxee rek moo fi ne daanaka man amatuma kàddu ci benn jotaay fu ñu dem fu nekk nii rek lay demee dégg ngeen sëriñ Modou Seck Diaby yaakaar naa programme yi nga xam ne moom la yàlla tegoon ci loxoom am na ci loo xam ne ci dogalu yàlla mu ngi ci sunuy loxo waaye mayit li nekkoon ci samay loxo li ci ëpp daanaka ñoom it mi ngi ci seen loxo alhamdulilah loolu nag dañ koy def ngir yaatal ci anam ak lislaam e, Moustapha mii ci yéen la bokk seen mbokk la seen jarbaat la seen doom la alhamdulilah mbooleem xeeti xam-xam yi nga xam ne dafa aju ci xolumu shariat yi mi ngi koy jàngale moo xam li ko tàmbalee mboolem lu sa xel mi daj ci fiq mi ngi koy jàngale xarut noonu bayaan mantiq usul mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ne dafa xaju ci luxa wala mu xaju ci naxwu tabaarakallahu sharfu xam-xam yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy jàngale ah, loolu nag nit ñi xam ko man koo jëriñoo dina ci am solo tabaarakallahu kon yàlla na yàlla xam loo ko eh, jataay bi yàlla na yàlla gërëm ko ku fi teew yàlla na yàlla jéggal la tabaarakallaahu ñi xamoon xii ni teew tamoon ñee teewit yàlla na yàlla joofal seen yaakaar ci baaxu yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam alaaji madi ñu waxaat ko yàlla na yàlla tabaarakallaahu taaral sa liggéey yàlla na yàlla taaral sa liggéey ci baaxu yonent bi sallallaahu alayhi wa mbaax manta paase nga toog ba àgg makkatal mukarram ni nga bëri ay bokk sa xel mi ni yar ci jëmm ni jëmm ju ñàkk solo nga jël sa tur rëdd ko ci rawdu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ñuy wax ne képp koo xam ne saw tur bind nañ ko foofa sa yaram aram na safara wax dëgg yàlla loolu euh, tabaarakallahu xol bu sell ta laab moo ko man euh, xol bu sell ta laab moo ko man yàlla ñu ko yàlla xam doo ci baaxu yonente bi sallallahu alayhi naka jekki nag ngeen baal ma lislaam ci nii rek la man di yaatoo faw rek dafay am jëmm joo xam ne yàlla daf koy installé ci barab ngir nit ñi mën koo jëriñoo ndax ba màkka melee nam mel tabaarakallaahu kenn ku nekk jaar fa yàlla ba mu bëggee màkka soppele ko dafa yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ak yonente jeex na lanbiyaa u jàlloon na mursaloona yi jàll nañ kenn ku ci nekk def na sa mission awliyaa u yi ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla installé ci kaw suuf ñu war a continuer liggéey boobu te yàlla wax na ci alquran ne inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yasonoon kon ñiñ dëkkal te yàlla jox leen cër cër ba ñi mom ko war ko jëriñoo yalla ñi ko yalla xam lo ci baxu yonte bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu bokk yi ñu ngi leen di ndokkeele di leen siyaar di leen jéggul jotaay bi yagna di wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Serigne mustafa Guèye yalla na yalla fayal ñu leen deug deug kaddu ngeen fi jotale neexna na ma sha allah waye xam-xame ne lool ku leen gis rek ngeen xam ne yeen ñi ay nitu xam-xam ngeen serigne bi nee mi ngi len di sante bu baakha baakha baax a baax di leen di gërëm macha allah feñal ngeen xam-xam te xam-xam mom léppam ci bir li yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxon rek man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma maan fa alayhi bil ilmi kon léppi xam-xam léppi àddina mi ngi ci xam-xam waaye léppi àllaaxira it mi ngi ci xam-xam kon sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen di gërëm tabaarakallaahu ñi ngi gis ci jotaa bi euh, sëriñ daara Mouhamed juuf mi ngi bàyyeekoo ba xadara ba muy Kaolack tabaarakallaahu di gis ci jotaay bi itam Cheikh Mouhamed Sall moom it mi ngi bàyyeekoo ba xadara ba ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax kon ginnaaw loolu xam naa dañuy jox ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamad Diouf moom it mu lu ci ay kàddu rek incha allahu taala Cheikh Mouhamad bismillah ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وذرياته man tabi'am bi ihsaan ila yawmi din wa ba'd ganna bañ sante yalla julli si sangu sangu yi ñi ngi ndokel képp ko xam yaangi tok ci si jotaay bi wax deug yalla amon nañ yéene teel a ñëw toorop waaye nit xamna na mbaay xamul kañ lay yegg ñi sante yalla baax baax di sante seigne Madi mi sëñ mi te ka sante bu baax baax xarit la soppe la sama waxtanu tay nak du gat du gudud dinaa gatal gàttal dafa am fenn fu ma jëmele muy sabaran ya ahla falastin ndax dafa am ben journaliste bo xamna ñetti journaliste lañ balañ yalla na to ñu dem ci debi xeer bi neena ñoon amon nañ yaakar pour genn mais fan yi passé 3 jours kenn ku nekk da nga bënd lettre kenn ki na mom mom du bal muk muk muk muk muk ko xamne man nga wax da eh, nga waroon wax ta waxo neena na mom du ga bal muk muk muk te damay baña bok ci ñooñu bu du dara sax yonent bu ne balixoo ni walu aya kon yonent bi limu wax rek julit ak moroom ak dafa melne tabax ak daatim dafa melne ne yaram ru tank bi bi metti loxo bi dina ko yek bopp bi dina ko yep lepp dina ko yëg kon ñu ngi naan wa ahla Palestine ñu ngi naan len nañ muñ bu baaxa baax ndax kenn si ñoom képp koo xam ne wàcc nga daanu nga foofu noonu yàlla dana def da nga ram mu junni ñoo xam ne safara mooy yéen si ñoom te jamono ji nag mbonteef gi ak ñaaw jikko yeeg li fi nekk yépp ñu amul lu mel nii ëllëg xeetu yontu yàlla seydina Muhammad bu yàlla ne ko xullatu mi na awalin wa xullatu min al axirin kon booba mm, du mën a du mën a matal loolu ndax ba muy wax ci aaye bu njëkk bi dana xullatu min al awalin wa xalilu min al axirin kon nak ñu ngi leen di sante bu baaxa baax di leen wax ngeen jotel wa Palestine seen metit ndax ñun ñi ni suñu mbokk julit lañ ndax bo xolé lan ma waral lool yow ñew nga ci dekk jàmmul ñu daggal la ben place bu ndaw ne la dekkal ngay dekk di dekk di dekk ba bëgg ram ba bëgg nangu dekk jàmbur yépp nit nak buy défendre da nga koy fekk yow da koy sa biir kër mu défendre bopam mais nak mënon Israël wa OTAN ak ñom ñep nga xamne man nga ne doomu bàjjanam moy États-Unis waaw ñoo ñoo koy jàppale ñoo koy def lolu nek motax mo am sañu sañu def lu nek ndax fi ne nii na lu mat juroom ñetti junni ay si ay xalé ki jigen taw waa Hamas yi tax yi tax ñuy xeex rayagu sax lu mat 50 kon mom amna leneen lu ko tax a lu lolu loolu fekk nit ci bër bu jàmbur na dama fa lay ndax 1948 lañ leen fi indi woon lañ leen fi indi woon mais nag ba mu leen fi indee nag lañ waroon a def defuñu ko lañ waroon a yem fa ñu waroon yem moo tax Erdogan ko rek ba mu taxee Nations Unies nee la leen yéen ba ngeen di soog a ñëw nii la tolloon ne la waa leen tey tollaat na nii tey tollaat na nii fa ngeen bëgg a jëm nag li ma la wax rek nit mënoo ko fekk si suufam na yaa ngi défendre sa bopp booy défendre sa bopp da ngay ñëw ñu fekk la sa biir kër ngay défendre mais mënoo ñëw fekk nit ci biir këram nga naa yaa ngi defaan si bopp ba tax ngay rey crime guerre bu gën a rey jamono ji nii mooy li Israël di def yal nañ leen yàlla rëbb yal nañ leen yàlla rëbb yàlla bu ñu am ndam yàlla bu ñu am ndam maa ngi seede na yonente bi jotel na maa ngi na journaliste boobu noonu li ma waroon a wax wax naa ko ñu ngi sant yàlla baax baax di sant imam ndax attaque at dafa sori rabi ay ñoo fi nekk deewa nga fi feebara nga fi tele nga fi lu nekk nga fi bu yàlla defoon na ñu toog fii daaw sànni benn sànni ñaan yàlla yaakaaroon na yàlla nangul nañu ko la moo tax ñu yaakaar na yàlla nanguloon nañu ko ñaanoon ñu ci yàlla tam fekkee déwén ñaanoon ñu ci yàlla tam fekkee déwén kon yàlla tam def nañu fekkee déwén kon loolu ci la ñu amee xel mu rafet ne leneen li yàlla nangu na ko kon ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaanal suñu mëdi yan na ko yàlla dëgëral yan na yàlla bëri ay kemam ah noonu iblis nga de waaye xaritu yonante beeg cheikh nga ndax iblis bokkoon na ci lam wax ndaw luma gëna sonal moy ndaw lo xam dafa tek ci sirata mustaqim wa law istaqamu ala tariqati la asqinaakum man ghadaqan waaw kay kon ñu ngi lay sant baax baax fi nga nek fofu la tega sa tank de bañu jugu ndax mag ñi lañ fa nekkon ba tay mi ngi fi ba tay ni mu kay waxe rek ministre Senghor ak ministre Abdou Diouf ño bok ba haga hagada waliyu yalla yi jamono cheikh ba hagada ba tay ño bok kon ñu ngi lay sant baax baax di ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral yal na yàlla barke njaboot gi fii lépp lu fi waay ñaan ak képp koo xam na ñaanoo wala si xel de mosalee sax yal na la ko yàlla sottil sottil gën gaa rafet du sottil kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw baax tabaarakallaahu di la gërëm xam naa mi ngi bëgg a naaj alxaaji Madi Diop nee na ñu jox Serigne Babacar Sang rek bu ko defee mu tëj jotaay bi joxe ay ñaan incha allahu taala. ñi ñi jàng fatiha mbokk yi imam Babacar Sang ne na ñu jàng fatiha jàng ayatul kursi yu aqul huwallahu ahad aqul huwallahu ahad ndax borom xam na ndax borom xam-xam yi wax nañ ne am na ku ko bind ci suñu mag ñi am na ku ko bind ci suñu mag ñi nee na wa man daa bisi alal yaqin. nee na wa man daa bisi alal yaqini. jabbi mu ni képp koo xam ne jàng nga fatiha. teg ca ayatul kursi ca ayatul kursi yu. teg ca qul huwallaahu. yàlla yàlla nangu. na lépp loo ci lépp loo ci ñaan suñu borom dina ko nangu. nañ ko jàng jàng mu nee na nañ ko jàng njàng mu sell. bu ñu nee na buñ ci paree. ñu jox imam bi jógee ko Jurbel. ñu jox imam bi jógee ko Jurbel. mu tëj ñaan yi. mu tëj ñaan gi. ndax jàngalekatu alquran. sëriñ bi nee na ndax jàngale jàngalekatu alquran. ku dul xutbu samaan. ku dul xutbu zamaan. moo la gën a jege yàlla. moo la gën a yàlla. loolu nag sëriñ si xam nañ ko. nee na loolu nag sëriñ si xam nañ ko. dañ ko nëbb rek. dañ koo nëbb rek. waaye jàngalekatu alquran. waaye jàngalekatu alquran. kenn gënu koo jege yàlla kudul xutbu zaman. kenn gënu koo jege yàlla kudul xutbu zaman. xutbu zaman bëreetul de. nee na xutbu zaman nag bëreetul jamono ji. buñ jàngee yi ma wax. moo tax nee na buñ jàngee lii mu wax. nañ jox sëriñ Daara Dieng mii. nañ jox sëriñ Daara Ibrahima Dieng. mu ñaanal ñu. mu ñaanal ñu. ñu fekkee ko ay at yu. ñu fekkee ko ay at yu baree baree bari. nee na sàmmal ñu suñu alxaaji nee na yàlla sàmmal ñu suñu alxaaji Madi Diop mii. ba ba ba mu dund ba doyal. mu dund ba doyal. yàlla na yàlla mën na ko. bismillah bismillah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلى عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت الحكيم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 مع الوشائل ترى حامل حكم من الشرور ومن الشرور ومن كيد العدو ومن شماطة من عدو جالب الغمم أو حاشد شامت أو زي مكاشعة رمع إدامية من عرب ومن عجمي ومن توارق الليل فيه طرقنا وفي النهار سوى الخيرات والحسن ومن سلاتنها صدر أجمعهم خنا إله سرور كل بالكرم ومن إساءة أهل سوء تعصمنا كذا مكائد أهل كيد ونقم وعلنا الدهر من قطب ولا مضر وابل من حياء فان سجم ثم صلاة على المختار من مضر وآله الطيب أعلى خصيا إن حيار واقف ببابكم يا سيدي يا أحمد التجاني كوقوف عبد دارع متملق نرجو حجوم نداك بفيضاني أنت الوجود وشر سر وجودهم أنت ممد لأولياء الأزمان أنت الولي إمن الولي إمن الولي إمن الولي إمن الولي أماني هذا انتهت تلك ولاية والعلا لجناب خدم أنبياء العبدناني صلى الله عليه ما دام الورى يحتاج من فيضان نوراني بارك الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه